asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 12 juillet 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey dafa mel ni rek Pikine la ñu xëy awale ndax ba ñu xëy ci xëtam mu njëkk bii di sunu làmb daal baabooy lañ fa fekk Mansour Diop ak Eumeu Sène Mansour Diop nag mooy wax moom daal dafa xëy tey taal ki nga xam ne moo di baabooy loolu la ko yëglikaay bi tuddee Mansour Diop alim baabooy maanaam daal lu méttee métti la ko teg tey day day daal dafa xëy moom wax fa li nga xam ne nii moo ko saf wala mu jàpp ne looloo ko neex moom Mansour Diop daal wax na ay waxam nee na nag baabooy lay waxal nee na moom nitu intérêt la nee na taal itam àndam boo gis daal lam cay lal mooy intérêt moo xam la muy ànd ak baab la muy ànd ak Aziz Ndiaye ak ñoom Baye Ndiaye ak ci Balla Gaye daa jàpp ne daal loola moom Mansour Diop nee na baabooy loolu jublu ci lenn lu dul intérêt ginnaaw la am cay amee daal moo tax nee na tamit leneen loo xam ne seetlu nañ ko nee na chaque combat bu Eumeu seen jubee ci bis bu mag rek baabooy génn di jaxase ak a wax ay wax di indi problème te nee na loolu na na ko tàyyi day sonal boppam mënut ci ñoom dara Mansour Diop moo xëy tey di wax loolu ñu ne ko digganteem ak Ama mu ne day sóob gëmul sax Ama Baldé nee na tey mu ngi ci ginnaaw Ama Baldé nee na gëmu ci dara dara dara la ci gëmul Mansour Diop ay wax nee na baabooy daal nitu intérêt la nee na def na ko fii ne mu loo domam la te tey anamu mu ngi ko bàyyi dem ca Balla Gaye di wax lu ko neex ak di jëf lu ko neex waaye nee na moom mënu leen a yàqal dal ñoom waa Pikine Mansour Diop nag moo wax wax yi ci sunu làmb du samay wax waaye ba tey rek mu mel ni coow la du ko sori ndax Abdou Bakhoum moom ma nga xam ne mooy mënaan sëru kii nga xam ne moo di Ama Baldé moom la muy leeral leena li leer ba leer day diggante Ama ak Boy Niang nan leer nañ ni midi benn problème amu ca ñoom daal ay doomi Pikine lañu ànd nañu di xàccendoo di dóorandoo waaye problème moom amu fa ndax moom daal jàpp na ne ama la ko war digganteem ak mu ngi koy def Boy Niang la ko war digganteem ak ama mu ngi koy def te ñu ngay ñaanal sax Boy Niang suba mu am ndam mu mel ni ki daal fi mu nekk nii moom Pikine loo ci mën a dégg moom donte bu rëy day waaye coow la moom bëri na fa bu a a baax waaye ba tey combat boobu dañ cay des rek jàppal yëglikaay bi di sunu lamb ci seetloob Assane Waalo Gay daal nee na ñaari open press daa mel ni bu Boy Niang moo ëppoon ay nit maanaam côté mobilisation bi daal woote ñu wuyu bi moom daa mel ni foofa moom Boy Niang yóbbul na ko fa ki moo di Lac de Guiers numéro 2 yëglikaay bi moo xëy tey ñëw di wax ci boobu combat mu mel ni ki nag ci mobilisation boobu day ka nga xam ne nii mooy xalifa Ndoye nekk président fans club Boy Niang moom leer daal li leer ba leer suñuy tànk la ñuy jël ñoom waa Pikine dox dugg ci arène bi kon daal ñoom la ñu nar suba mooy teel a remplir dugg toog occupé place ya Khalifa Ndoye moo xëy tey di wax loolu ci yëglekaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb mu mel ni ki nag fa nga xam ne nii day moo di géej waaye ñoom itam day ànd nañu de yëglekaay baa ñu ko wax muy Balla Gaye Gouye Gui Sa Thiès ñoom ñëpp daal def nañu benn dànk nekk ci ginnaaw kii nga xam ne moo di lag de di ko dooleel ngir suba mu am ndam yëglikaay baa xëy tey di ñu ko wax kii moom ginnaaw ba mu amee ndam ba pare sol naw dàllam nag dem États-Unis rek ngir gën a yokki dooleem waajali boppam muy garga mboose yëglikaay bi ne na garga léegi dem na États-Unis nag ginnaaw ba mu daani Moussa Ndoye ba pare lam ca jublu nag xam naa daal mooy gën a yokk ay armam ngir daal saison bi ñu jublu de wala bi ñuy jëm garga bu ñu ca yegsee mu gën a wan a mën a wane boppam yëglikaay bi di suñu làmb moo xëy tey ñëw dina ko wax waaye jàppal kii nga xam ne nii wala combat samdi bu moom di suba Leewtoo point moom mu ngi ñuy xama li leer ba leer day jàpp leen mbër ya moom ah wax nañ leen lu leer de ku ci nekk moom fukki accompagnant maanaam fukki nit ak juróom ñoo lay gunge doo ko dépassé moom waaw li leer ba leer daal amul damay fay sama nit yokku ko ci wala nangam fukk ak juróom la ñu leen may kenn du ko dépassé porte yi itam mu mel ni ki daal jàppal balaa ñu koy ubbi moom neuf heures wala boog midi la ñuy ubbi porte ya waaye balaa midi jot moom neuf heures la fa waa sécurité bay xëy nekk di saytu stade ba ak la ko wër wala arène ba loolu Leewtoo point net moo ñu ko xëy di ñu ko xamal waaye sunu làmb itam ñëwaat na di ñu xamal day nee na jàppal quatre sant wala cinq cent élément day boo xoolee dinañ ko fa wàcce ngir lan làmb ja ñoŋ commencé ci jàmm jeex ci jàmm kon daal li leer ba leer moom suba kuy dem arène nationale boo yeboo yóbbu fa jàmm maanaam dem seetaani làmb te yem ca bu sa mbër daanee nga sibile te bu ñu la daanee nga muñ te ñibbi boo dee faroo kenn di seetaan nga ñëw seetaan waaye daa mel ni daal képp ku fa nar a ñëw suba di am looy def lu bokkut ak lañ fa santaane boo sàgganee yoon dina teg ci yow loxo te bu keroogee mën ngaa dugg fu la neexul wala nga dugg foo xam ne bopp du neex sa ay mbokk ku mel ni mu mel ni kon Talla Ndiaye suba maag yow moom bu ñuy dem arène ba wala waa Leewtoo bu ñuy dem nun moom reportage suñuy yóbbu wax la fa xew won ko internet yi waaye ajjumaay tey jii du mën a ñàkk ñu balu ñëpp ak baal ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne ka réew mi nu ne muy Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ndey Kumba Fall neel amin mbokk euh, waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon ci revue de l'arène bi nu ànd ak yéen ci si euh, ak euh, sunu laam sunu laam tey xam nag mbër la woon tekki ngeen moom di rakk si Pape Diop Poston te nag moom dafa xëyee baabooy nee na daal lu lu ay di jàmbat <laughs> lu def waxul di ay di jàmbat ne ne baabooy daal moom mooy diviser daal euh, Pikine Pikine daal coow fa am daal baabooy moom mooy moo ko sooke daal. waaw loolu de la wax moom Mansour Diop man nag li ma si xam mooy euh, ñoom waa Pikine wala sax dama naan ay nit suñu nekkee nañu ànd te yàlla tax. te itam di waxante yi dëgg loolu dafay dëgëral ànd parce que Baboy la ma waxoon keroog rek mbër la woon champion la woon bëree ba def lu ne ci làmb ndam lu ne mu yóbbu ko waa Pikine waa Pikine itam defe naa saa yu doon génn di bëri ji dañ koy soutenir ndax defe naa ku seetaan diggante ma Gris Bordeaux stade Léopold Senghor defe naa keroog gis nga mbooloo mu doy doy te loolu ay doomi Pikine la ñoo ko toppoon moo tamit mu def keroog exploit bu rëy kon tey doom defe naa kon ñoom waa Pikine ñëpp di leen war mooy ñu réunir autour d'une table maanaam toog waxtaan soutenir seen ay mbër parce que àll bu ne la fay ñuul moo fa dem ñàkk olof njaaye ko wax moo gën daal waññantey weex-weex yi yaa wax lii yaa wax la parce que waxante lu ñaaw amul njariñ du tax ñu fonk la quoi pour man li gën a rafet mooy nit ki bu ngeen bokkee dara mu juum woo ko mu ñëw ndey mën nga wax ko ne ko kat fii ak fi ak fii waroon fi doxali nii li olof di wax potum biir nekk quoi ngeen waxtaan pour mu rafet moo gën waxante bi moo gën waxante bi parce que ku ci nekk ni ni neexi ni la yàlla war a def dina la def waaw tey moom bu ma bañee ndey ku ma faal sant faal itam yàlla def na ko ba pare te du ci man dara kon nag ku ci ne rek pour man war nga am yéeg boobu ak gis-gis boobu ci sa côté ñu rafetal affaire yi waaye waxante ñaaw li daal man Babacar daf may daf su ma koy dégg ndey kumba day metti sama xol parce que yàlla moo ñu bind ba pare fonk ñu kon defe naa war nañu gën a fonkante ngir fonk gi ni suñu borom bi fonk daal waaw moom loolu laa ciy wax ci côté boobu. ok Babacar waxtaan bu euh, póotum biir néeg euh, dina mun amati ndax gis nañ loo xam ne tribunal Euh, est dina neex dina neex defet na aussi nu fàttali aussi ne 100 pour cent Pikine comme 100 euh, pour cent Xarañ Lo waa Pikine na ko fi njëkk créé mais dafa mel loogu léegi loolu tas na parce que gis nañu fa euh, si open press booy ñaa gisoo fa Ama Baldé gisoo fa ba Baboy maanaam daal affaire yi Eumeu Sène ak Baboy aussi demantul ak noonu lu ñuy wax rek réconciliation de façade la ñuy na ñuy maslaa rek noonu mais demantul noonu Pikine est-ce loolu tamit loolu ñuy wax noonu potum biir néeg boobu dina mën a am si jamono gi nu nii waaw olof dana bu ndox tuura an baax fa des ñu ne ko dire dañuy rootaati pour man dara paasewul parce que li tax mooy ñoom ñëpp ngi fi te ñoom ñëpp ay responsable lañu ba tey war nañu mën a toog waxtaan parce que coow moom lu mu bëri nday kumb lu mu bëri bëri buñ ko waxtaanewul solution du ci am doonte coow li bëri na ci seen biir waxante bi jàppal bàyyil xam nga naxante am na yoo xam ne jëru ko daal jëru ko yaa ngi dégg ama li muy doon da koy doon kenn du ci mën dara booy ñan la muy doon da koy doon kenn mënu ci dara Eumeu Sène yàlla ne woon na dina indi roi des arènes Pikine indi na ko fa tey kenn mënu ci dara baaboo itam la ko waroon ci biir Pikine def na ko fa te loolu itam kenn mënu ci dara ba ca mag ñi leen jiitu woon muy Pape Diop Boston yàlla na gudd fan te wér ñoom dégol ak Falaye Balde yàlla na ko yàlla xare àjjana ak mag yi ne woon Pikine yëpp kon ñoom ñoo bokk lu ñu mënta xajoo nañu waxtaan waaw rafetal diggante bi daal man daal vraiment loolu leen di wax quoi nañu waxtaan quoi te bañ a naxante waaw surtout loolu waxtaan te a naxante Euh, Babacar nag ñuy dem nag si bis bu mag muy diggante Boy ñaa ak Lac de Guiers euh, Boy Niang daal dafa mel ni waa waa waa Pikine daal kii nañ ko euh, sas nañ ko daal parce que nee ñu keroog open press ba soo xoolee ba su Boy Niang ak ba su Lac dafa mel ni pikin daal lu mu génn nekk si ginnaaw doomam mu ëpp nit ñi noo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñoom noo nekk côté Guédiawaye ah. waa loolu moom si constat bi boo ko defee ci côté mbooloo mi da gis ne open press Boy Niang par rapport ak open press Lac de Guiers 2 loolu nag euh, xëy li koy def mooy xëy communication bi maanaam jàllale gi yu mel ne ki noonu waaye fu ci nag tamit bëri na ay nit ah parce que man bu ci ne dem naa ci ne tolloo addina lépp mën lii ëpp lii lii sut lii loo ci mën a xam daal mooy kan ni combat la boo xam ni mobilisation moom xalaat naa suba di ko ci gis bu doy doy ndax ku ci ne am na loo ñaaxe sa mbër booy ñang am na lu ko waa ñaaxe ndax ñëpp gën nañ comme ni nga ko waxe ngir pousse ko ngir mu am ndam noonu ndax keroog moom itam pour mu dugg fi mu doon defee open person bi rek problème la woon ndax mbooloo mu bëri kon ça dire que moo lay woon ñaari mbër yëpp ku ci ne tey supporter yaag fan si club yaag ñëpp a ngi mobilisé wu ngir di la pousser ngir suba nga am ndam mais itam noonu ñuy pousser ngir di am ndam ko ko ci yàlla xañ tamit na ko muñ xam ne loolu mooy sport sa mbër yaafuusul parce que ñaari mbër yi koo ci xool ndey Kumba Faal ku ci ne li ko waroon def na ko ci combat bi nekk ci kon li des nag mooy ñëw sàkku si def si li nga war a def yàlla buur bi joxe ku mu jox nag moo gën ci yow ku mu xañit itam taxul nga yaafus da ngay wutiwaat rek. si si si si si combat boobu la des ba tey kii di Khalifa Ndoye di président fan si kër Boy ñoom daal ñoom nee na Pikine pare nañu looloo tax sax su suñu dem arène nationale bi la ñuy dox nee na jubali jubali arène nationale bi rien que rek pour seen doom am am ndam. waaw parce que arène nationale loolu Khalifa Ndoye wax yaakaar naa war na mën a nekk dox dem parce que arène baa ngi biir Pikine waaw te nga ne Pikine ak Guédiawaye ku séq kon defe naa muy ñaari camp yëpp moom yaakaar naa ah xalaat naa ne su leen neexee daal kenn du ci jël oto booy dem arène ba war nga mën a dox ndànk añ ba suur waaw dox dem loolu moom war na mën a nekk xanaa kay li ñuy wax mooy rek nañu teel a dugg rek teel a jël seen i place teel xaar seen ay mbër loolu tamit yaakaar naa dina ci war a mën a am daal incha comme ñu wax ne combat spécial mesure yoo yoo xam dafa dara spécial ndax Baye Ndiaye jël na matuwaay yépp pour sécurité bi li ngay wax ni cinq 500 éléments dañ fa nekk rien que rek pour sécuriser ñi nga xam ne dañuy raas dem. waaw pour sécu ñi ñi ñuy sécuriser kay mooy ñi ñëw di seetaan si. <laughs> ñëw di seetaan raas kati déem yi moom dañ leen di raas. waa quoi ku ñëw di raas déem daal jàppal ne moom. police ak gendarmerie lay raas te buñ la jàppee itam li ma nga dem fu la neexul kon daal dama bëgg ka képp ñëw rek suba nga ñëw intention bi war a andi nag mooy ñëw seetaan supporter si sa mbër loolu moo la war a andi mais boo boo ñëwee ngir leneen ah wax dëgg yàlla di fa fekk ñoo xam ne loola moo leen fa tax toog te itam encore une fois ñu ci profité rek di suñu police bi wala suñu armée nationale euh, commissaire Cheikh Diop nekk fële ca Kaolack maa ngi koy nuyu ak ku mel ni chef John Sina di la wan ne ñoom itam ñu ngi liggéey seen liggéey bu baax a baax police bi ndax gis nañ arène nationale vraiment saa yoo fa demee ni ñu koy sécuriser dañ cay taxaw bu baax a baax ba ku ci kenn rek gis nañ fa ñu fa damm ay sës dañ leen jàpp yaa ngi dégg ndax caméra de surveillance kon moo lay wan ne que même tey ñu ngi wax que ni supporter ñu ngi leen di gën a si loolu ñiy dem ci arène national di damm sës yi nañ ko bàyyi lii pat suñu yëf la ñun ñoo ko moom tabaxaluñ ko président Macky Sall tabaxaluñ ko ministre tabaxaluñ ko Matar Ba xam nga kuñ ko tabaxal peuple sénégalais bi parce que ñun ñoo fay dem kon nañ ko sàmm nit ki nag xanaa doone man damay préféré di toog ci ay dër te ñu tegal ay sées yu neex rafet ba bëgg dee macha allah nga toog doo am benn problème kenn du xatal kenn léegi loolu nga ñëw di ko damm. loolu sam waaye dañ ci war a wax suba man maa ngi gën a waxaat de waa police nañ ci gën a bu baax baax parce que duñ leen ko sax wax mais licence ñoom ñu ngi ci fee chaque jour kon ñiy damm saisi laa xam ne daal suba moom nañ ci bàyyi ku ci dammub saisi def ndax man maa gis kera ñoo xam ne dañu damm ay saisi ñu teg leen loxo waaw ko loolu am na solo te lu jar a bàyyi xel la euh, journal sunu lamb aussi mi ngi ñëw aussi si voyage euh, Garga Mbossé bu mu daanee ki nga xam ne mooy Moussa Ndoye nañu daal dem na états di waajal Euh, saison prochaine. waaw loolu moom mooy li am garga ah mbër la champion la defe naa kon dafa dem jëli ay vacances am loolu tam xel nangu na ko préparer yi pour déwén parce que euh, daas fanaanal la ñuy wax daal moo gën a wóor. jeexale ak euh, Leewtoo point net Leewtoo point net mi ngi xamal ni Baye dina ubbi bunt yi suba à partir de de de midi. à partir de midi ñu commencé jaay bee yi mais balaa boobu 9h sécurité bi dina fa taxaw di pour pour sécurité sécurité amateur yi nga xam ni ñoom ñooy teel a ñëw pour jënd seen billet. mooy li ma la wax sànq rek moom si kàttan yàlla police daal ñu ngi leen di nuyu di leen siyaaraat rek ñoom suba moom seen liggéey defe naa kenn du leen ko jàngal comme comme ne moom kon nit ñi mën a ñëw teel dugg kenn bañ a am benn jafe-jafe encore une fois ñu ko ñaanal journée suba rek mu réussir ko parce que comme li wax rek xale la ñëw na investir alalam yàlla na ci génn ak ndam loolu la ñuy ñaanal tamit promoteurs yëpp pronostic booy ñaala dëgër waaw pronostic moom day xaw a jafe parce que combat la parce que li tax ma ne la combat la mooy ñoom ñaar ñëpp ku ci ne am na loo bëgg Boy ñan li mu bëgg mooy gën a xuus parce que bëgg-bëggu beeg mu ñu wax ak ñu bañ ko wax li ne ci xelam mooy tey mu daan la dëgër pour jël Balla Gaye de bëri ak moom loolu moo nekk ci xelam et tamit nit ku ne am nga ambition loolu mooy ambition parce que euh, làmb noonu la da ngay fexe dem o sommet li la fay yóbbu nag day am fooy jaar moom mu ngi ci yoon wi ndax dina ko réussir du ko réussir loolu suba lañ ciy xam dara Lac de Guiers tamit lenn moo ne ci boppam dafa bëgg di roi des arènes te Eumeu moom moo yor roi des arènes te daan Boy Niang dina tax ko moom ak Eumeu Sène bi war a mën a am kon defe naa loolu mooy li nga xam ne mu bokk na ci. bu fekkee Eumeu Sène moo daan Modou Lô. bu fekkee Eumeu moo daan Modou Lô même bu même même même bu fekkente ne loolu amul sax que revanche revanche ci làmb daf daf ci revanche Eumeu seen daan ak mu daanoo ci yam moog la dëgg dañu war a bëriwaat parce que il faut ñu bëriwaat seen diggante revanche am ci loolu moo ci war a mën a am kantaan nag pronostic naan kii ak kële li ma xam daal mooy ah sport la ñuy def sport nag dina am ku favori ak koo xam ne nii du nekk favori bu ñu leen xoolee nag ci côté mbër yi la de Guiers bëri la ki Boy Niang bëri Lac de mën a nekk favori légèrement mais du bëri parce que moo jiitu ci làmb daan daan naa Yékini dafa doy way ci làmb loolu mën na ko favoriser tuuti ak expérience bi Boy Niang tamit outsider la mais outsider bu jëgër bu dëgër la parce que ni mu bëree ak mbër yi mu daan ci carrière am ak façon yi mu leen di daane defe naa tamit xale la boo xam ne daal am na ambition te am na lu mu bëgg kon moo lay wan nekk ñoom ñaar daal suba ñu ngi ñaan yàlla rek mu commencé ci bismillah rahman rahim jiyaa ci alhamdulilah rabil alamin que jërëjëf Babacar si kàddu yooyu leen di dàggoo di leen jox di daje lundi suba si combat bi. suba waaw non suba suba parce que suba Leewtoo TV dina fa nekk si kàttanu suñu borom lépp li nga xam nga Talla ak Babacar les coulisses du mën a ñàkk parce que bis bu mag la mais tamit dañuy profité rek nuyu suñu internet yi rek ni ma ko waxee woon sànq ñoom Cissé xam nga koo xam ne dafa créé fans club wala ay créé fans club ne pour Leewtoo TV la ñooñu Babacar ak 100 pour cent Babacar bi mais ki nga xam ne mooy Fatma Fall Bergamo ital du ma ko fàtte di nuyuwaat encore une fois rek Aïda Aïda Diouf bu Leewtoo maa ngi koy nuyu di nuyu waa Leewtoo yëpp di ballu ñëpp ak di baal ñëpp ak di ñaanal yàlla suñu équipe bi dimanche mu gagné Tunisie finalu ajjuma indil ñu Coupe d'Afrique bi fii Sénégal incha allah mbokk waa Leewtoo TV bi comme ni nga ko gisee rek bu njëkk ba Babacar moo doon tëj mais tey nag man maay tëj euh, di nuyu sama yaay Mère Sow di nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Dadi Gueye di nuyu aussi Astane Diné depuis Italie Chéri Khadija Diallo depuis unité 26 dina jox dig daje suba incha allah si arène nationale combat booy Niang ak la de Guiers 2 jërëjëf.